asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci naa Ahmadul Xadim <coughs> ñoo ngi ñaanal euh, Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne mooy jëwriñu yoon wi sunu boroom gën a guddal aw fanam te gën a dolli ak wéram waaye di ziare ak a ñaanal euh, Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul Khadir gépp ziar boobu nag ñu jaarale ko ci e, kanam sunu jëwriñ ji ñu toog di sunu sëriñ di sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mbokk yi tey ñu am mbégte noonu ñu leen ko waxee ci e, tàmbali gi e, ñëw fii ci dëkk bi nga xam ne moo di <coughs> njurul fekk ko fi muy daara joo xam ne sëriñ Salihu Mbacke Khadim Rasoul moo ko joxoon mu sanc ko ci atum 1990 sanc wu ko dara nag lu weesu jaamu yàlla ak liggéey ak yar taalibe yi tàggat leen ci njàngaleem Cheikhul Khadim loolu moo tax ngeen gis ne daara ji eh, tool yaa nga ne ñuy jaam eh, liggéey la yàlla waaye daara jaa ngi nii ñuy jànge alquran waaye nag jàkk jaa ngi nii ñuy jaamoo yàlla ba ni ngeen jàkkaarloo ak kaamilu alquran boobu nga xam ne lenn ci sëti sëriñ eh, leen bind nañ ko boole kaamil bi ak jëmmi nit ki jaayante ko ak moom ngir jëmmi yàlla loolu moo tax bokk yi tey jii seen télévision Lamfal TV ànd ak seen site Assalaamy TV ñu ñëw fii ànd ak seen rajo ICAP FM ñëw fas yéene taataan ay kàddu ci Serigne Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir kaddu yëpp nag doon kaddu njariñ ndax mbokk yi yaakaar naa ne yàgg ngeen ñoo topp ci jataay yi ay kaddoom saa yu ko yëkkatee moo xam muy màggalu Cheikh Abdoul Khadir di jib wala weeru koor muy jeexal kaamilu alquran bi ànd ak yéen ci guddi yooyu da ngeen gis ne kaddu yooyu des na ci mën a barkeelu waaye di ci dund ak di ci jariñu ba eh, eh, eh, at mi dellusiwaat ñu fas yéene ànd ak moom te di ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko yàlla nangul ab liggéeyam te guddal aw fanam te musal ko ci mbooleem pakk yi ak ndog yi ba mu àgg fi nga xamante ne bii fa ko suñu borom jëmee te men ndog bañ ci am kon ñu àndandoo taatan kàddu yi nga xam ne ginnaaw bu mu nuyoo ba noppi mooy bàyyi ko ci moom jëm ci mbooleem mbokki jullit yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum yéen mbokki taalibe yëpp asalaamaaleykum yéen mbokki jullit yëpp ñi ngi leen di nuyu niñ ko baaxoo def ci waxtu wi buñ ci tolloo di waaje jub bis bi ñuy fàttaliku sëñ Abdul Xaadir Mbàkke naka jekk ñoom ñii dañoo baaxoo di fi ñëw ñuy fàttalikonte rek ci waxtaan yu baax waaye nag loolu lépp ñu ngi koy def ci kilifteefu sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci jëwriñ ci kër sëñ Abdou Khadir Mbacke ñu ngi leen di jotli kàddoom ñu ngi leen di jotli ab nuyoom jëmee ko ci mbooleem jullit yi ak jëmee ko ci mbooleem mbokk yi di siyaare it di jiital ci siyaare bi nag alxalifatul am li taifatil muridiya ayyadahu llaahu wa nasara wa atama muraada muy sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal àggale yéeneem ñu moom it ñu ngi koy siyaare ndax waxtu wu ne moom ci boppam rek jëmmam da day jàngale ci ñoon ak taalibe jëmm ji rek dañuy jàngal ak taalibe aw dox yéenam it dañuy jàngal ak taalibe kon nag mën nañu lu dul rek ñaanal ko ci sëriñ bi rek tey sàkku ci moom ñaan sëriñ Seex nag ni mu ko waxee rek Euh, luñ ciy def ci kër gi lu ne rek sëñ Muntaxa ndigalam la ñuy diglu ak kàddoom ak baatam kon ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp di am dañoo baaxoo waxtu wii saa bu jotee ñuy waajal màggal bisub sëñ Abdul Xaadir di fàttaliku ay jëfam ak i jaar-jaaram di at mu bees bi waaj ñëwit day yell ci ñoon ñu sànni ci ay kàddu yoo xam ne dañuy soññaat ndax sëñ Abdul Xaadir ak fàttalik ko mooy fàttali ko lu baax rek ak fàttalik ko uh, siiraam siiratu saatiya loo ci fàttali ko rek dana la jëme ci lu baax dana la jëme ci nga gën a bëgg sëñ bi dana la jëme ci li nga nekk nga dëggu ca dana la jëme ci ngay defar te bañ a yàq dana la jëme ci nga topp sunna dana la jëme ci sag mooy ci sëriñ bi nga dëgëral ko te bañ caa dénge dénge kon fàttalik ko lu ama am njariñ la ndax moo ki kemam sëriñ bi def na ci ñoom lool kuñ fuñ koy waxtaanee ku ko déglu te déglu ko xel mën nga caa jële loola jariñ ci wetu alaaxira te dana la jariñ it njëkk si alaaxira fii ci àdduna ndax waxtaane boroom xam-xam waxtaane nitug yàlla ab dundam ku ko déglu dana la eh, doy sëkk bind ci fekkee lu baax ngay wut ndax seeni jaar-jaar te loolu lépp nag li ci mat a mooy loolu lépp sëriñ bi rekk moo yaatub liggéey kenn ku ne mu def ci yow lool boo yoroon sa jomi bopp di góor góorgóorlu sa bopp it mënu fa àgg kenn kon loolu sëñ Abdou laa ko mos a dégg <laughs> kon nag yàlla na yàlla dimbali ci darajaam ndax defar mbooloo moo xam ne ni ko sëñ Saaliw daa waxe maa am na bi ñuy waxtaan mu ne sëñ bi boo ko dee seet ñim defar nuñ xaje woon ci jenn jamono moo lay jaaxal waaw nuñ xaje woon ci jenn jamono <laughs> <laughs> nee na mujj daal la wala la wala fii doon wax naan eh, Euh, am yeew mu ci mat rek daal dem tabbi géej ñoom ñëpp daa mel ne noonu lañ daje woon dañoo daje woon <laughs> ñëpp di mat matum yeew <laughs> ba na nag ñu ñu tàbbi ci géejug sëñ bi waaw amul fu mu yem kon nag alhamdulilah kon yàlla na yàlla taas ci barkeem ndax moom euh, daraa wax naan foo euh, foo foo digg fu waaye defee lu baax de man neex na ma ku ko jot liit dana danaa yaakaar ne da nga ci am tiyaaba waaw ku wax diggante bu rafet bu ne wala diggante bu boo xam ne déggoon nga ca dara loon ñagas nga ñëw ne ko nga njëkk ko wax ne ko rafet eh, rattaxoo nañ dana leen da nga ci am tiyaaba de yow mi ko wax rek ci ci ci ci fu mu ko mën a diggee ci lislaam jëpp rawatina ci mbokk yi kon noonu la bëggee woon lu baax noonu la doon dundee sunna noonu la doon defare noonu la it la toppe woon waxi së sëriñam di eh, soog a nekk nag li doon ci ñoom nga xam ne eh, tënku rek ci taxaalim seex mu njàngalim sëñ bi rek kon nag yàlla na yàlla taas ci barkeem léegi nag moo at bu dee dee bay waneen di dugg màggal gi di bëgg a jublu si ak eh, at at mu bees mi di bëgg a jublu si dañoo war a xam ne nag kenn ku ne dafa war a fabuwaat gën a góor góorluwaat te xam ne li sëñ bi yor ak lislaam lu ci ne la ciy jariñe sëñ bi nee na mooy ay teggin ndax lislaam sëñ bi nee na wana taxaw bi annahu kaada yakoon sulu see diini fa fadluhu mubin diine bu nu fekkoon ñetti ñetti xaaj la ñaar yi xaw naa nekk di di teggin boo amee teggin de xaw nga am ñaar yi mu des benn kon teggin lu rëy rëy la diine jëflante la moo tax sëñ Abdou Khadir mi ñuy waxtaane di dundam bépp ci jëflante ci jikko yu rafet ak sa digganteeg nit ñi waaye diine yëmut ci rek eh, tatbiix ko yow ci sa bopp déedéet sa diine ak diinu al muhamalatu mooy mooy mooy jëflanteeg nit ñi jëflanteeg nit ñi nag la ca la ca lay baas ba mooy ay yori teggin moo tax sëñ Touba ci boppam soññ lool ci ay teggin ndax jëflante gu rafet googu sëñ bi daa sonn taalibe bi yëpp ci taalibe bi bu ne ak moroom ja bëgg moroom ja moo tax sëñ ma Lamin Gaye daan daa ko tombe nii di wax ne ci nga xam ne lépp ñu ngi ko jëlee ci njàngale mi sëñ bi eh, eh, da ngay da koy bëggal sa sa sa yow ak sa mokk mbokk yow ak sa digganteeg sa boroom yett yi boo ko defee danga nga jubóog moom topp ay ndigalam bàyyi ay teram sant ab dogalam boo ko defee sa diggante ak sa borom di ngeen jubóo <laughs> sa moromum jaamam sa moromum lislaam di sa moromum taali bi di di ko ki nga bokkal jullit bu ngeen bokkee pexe bokk yéene bokk la ngeen am da ngeen jubóo hmm. jàmbur bi mu ki nga bokkalu diine eh, bul ko bañ bul ko yeb bul ko xeeb kon ne da ngeen jubóo <laughs> Eh, kon yàlla nu yàlla dimbale bañ dégg loolu bu baax kon bu ko defee nag ngeen daal xam ne sëriñ bi bëgg bëgg ñëpp jariñu moo tax mu ne wa argabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa al ayaati walaw suwayatan faqat li yamalu saalihatan tanfahuhum in qafalu nee ñi de ñi ne bàmmeel ñëpp ku leen yeewoon na leen lu ngeen gën a bëgg liñ lay wax mooy ku ñu dimbali waatoon ñu dem àddina donte lu ñu amaat wenn waxtu as lañ ñuy fay mayaat ñu ngir ñu def lu baax loo xam ne buñ dellusiwaatee danañ jëriñ kon nag ñun ñi ne ci adduna sëñ bi nee na te jëtaguñoo dem te yàlla ñu fi yàgg ba ba def liñ fi war a def lépp nee na li ñu war a def mooy màngali des ci suñu dund bañ cee fox bañ cee def dara lu liggéeyal yàlla liggéeyal lislaam loo xam ne boo demee foofee mu mën laa jëriñ loolu lañu sañ bi digal bu ko defee nag loole lépp la ci jëkk mooy nit ki ku ne na nga xool sa digganteeg sa na nga fexe ba am kersa sa digganteeg sa borom boo ko bëggee yoonu teggin wi nga bëgg a dudd mbeddum peddi teggin mi nga bëgg a dugg danga ci mën a solo wastaxyi min nazari rabbika al nanga fexe ba kersawu ci sa xam ne yàllaa ngi lay gis waxtu wu ne fa hadamul xayaa i siimatul la in ñàkk kersakat jikkoy la ndax yonent bi nee na isaa lam tastaxi fas nax maa siita nit ki bu amut kersa rek loo ko neex mën na ko jëf ab li ko war a tënk mooy kersa ab jullit li ko war a tënk mooy waxtu wu ne nga jàpp ne yàllaa ngi may gis lu baree bari doo ko ñemee ndax sa kilifa rek lu lu baree bari doon nga mu gis ko wax ma ak son kon nag waaw teggin mbeddum tebbi teggin mu ñu leen bëgg a dugal ak makaarimul axlaax te moo dik taali bi rek loolu al adabal adaba moom lañu ñu suñ jàngal al adabal adaba jàngale na ko ci masaalik nee na al adaba am na benn kenn ku doon dénkaane sëñ bee ko nettali waaye la mu waxoon kami dénk mooy al adabal adaba summal adaba wa huwa an taburra umman wa aba wal amma wal ammata wal axal kabir wa sheyqa inna sayqa bil birri jadir al adaba adaba taqool ak teggin su adaba topp taqool ak teggin takko teggin mu ne ko mooy lan nag léegi mu ne woowu moom taqoog teggin an taburra mooy bu topp umman ndey lu la wax nga def ko waa ban ak bàyyi ndax yàlla lu muy wax ci ndey ak bàyyi ndey lay jiite ndax ndey dafa am dafa da xamalatu umoo karaxan woo daxatu karaxan <laughs> wa hamluhu fisaaluhu salaasuna sahra kooku daa am ci yow responsabilité bu rëy di ngay topp del topp sa ndey di topp sa baay lu ñu la wax nga def ko wal xam ma na ngay topp sa baay bu ndawit wal na ngay topp sa bàjjanit wac wal axal kabir sa magit na koy topp wac seyxa na ngay topp sa sëriñit daal ne inna cheikha nag ab sëriñ kat jadiirun ku yeyoo la bilbiri ci topp loolu sëñ bi kon yàlla nu yàlla dimbali ci loolu mu daal cee teg ne wa kullu man sama alayka tukrimu wa man saxura anka tarxamu képp ku la mag dee ko wekk te di ko teral koo mag yow nga di ko yërëm boo ko defee rek ab société bu baax daal di taxaw bu ko defee it mu sëñ bi jàngal ñëw jikko ci luy defar jikko ndax da dama lay na wax ne eh, diine ak diinu al muhamalatu moo tax ku ne la nga yor ci jikko joo xam ne neexu la sëñ bi dalay wax ne la nga fexe ba tàggoog moom la nga wax la nga yor ci jikko yoo xam ne xam nga ne lii tegu na ci yoon mu ne la nang ci sax mm-hmm. ndax jëflante googu la bëgg diine du ca génne rek ni ma ko waxee tabbiix yow ci li ngay tabbiix yow ci sa bopp rek mm-hmm. déedéet li ngay jëflanteeg nit ñi am na ci solo lool moo moo tax mu ne amaa hamiyatun wa kasratul xadab wa iddatun wa dayxu sadrin bi toxab mm-hmm. bu fekkee yàlla dalaa bindee la nga bari jombuloo mm-hmm. te doo ko def ci dëgg ba gaaw a mer naqari deret xatub dënn nanga nga xa na nangul sa bopp ne fahiya min axlaaqi seytaanin laayin na nga wóor ne man man kat yor naa jikkoy moom ka ko yor yor na jikkoy seytaane xaasanal muhiinu minhu kulla hiin waaw sëñ bi ne ñu ne ko waa loolu mbàkke bu boobaa nag lu ci saafara mu ne dawaa uhoo xilmun bi an laa fi xalaa xaqiqatan ilaa li rabbin qad xalaa li koy saafara mooy nga xam ne jaam bi yii di jëflanteeg man baa di gaaw di tàng ci moom la muy def yàllaa ko sant <laughs> damay damay damay jàpp ne lii muy def yàlla ko ko sant kon waruma ko cee manqué la nii ndax euh, euh, moom ku ñuy manant la rek di ko def defal naa nangam defal naa nangam defal nangam kon nag bu fekkee yaa ngi euh, yaa ngi yaa ngi yaa ngi ci yaa ngi ci jëflanteeg moom ca loola day mel ni yaa ngi dingat sa borom loolu boo ko xamee daal di xam daal di daal di mën a jëflanteeg nit ñi mu ne laa tastakil xaajaati lil xalaaiqi bal iftaxir ila al qadiri al xaaliq mbindeef yi bu boo amee aajo bu leen ko tawat tawatal yàlla rek <laughs> na nga ne fii wa ahridan hanhum la dal idbaari wa aksihi waqna bi hilmil baari bu la mbindeef jublu see noonu ko sëñ bi doxale woon aqbalati dunya ilay xab ko miatuwa waaw ba ma àdduna jublu see dama ko wan gannaaw ba ma wanee gannaaw it ma gën ko wan gannaaw <laughs> waaye nit ñi buñ la buñ la dëddoo ak buñ la jubloo lépp bu ci am soxla yow daal xamug yàlla gi na la doy na nga itteewoo loolu ba noppi nag nit ñi nag leen di xool ci ñaari bët boo ko dee da nga mën a jëflanteeg ñëpp xam nga sëñ bi dafa jàngal ku ne na nga na ngay na ngay fexe ba boo yooyu jikko jox ne gënut na ngay fexe ba mën caa génn mu ne wansur bi ni ilayhim abada hayni sarihatin bi amrin bil huda nit ñi na ngay xool ak ñoom ñaari bët mu ñaari bëtub ñaari bët benn bi mooy bëtub sariha mooy di leen digal lu baax wanax yin ay daan wanax ay daan xan jamihil munkari maa iqaamatil hududi mooy di leen tere lu bon ndax mooy bëtub sariha bi ci nga leen di xoole di leen eh, eh, di leen digal lu baax di leen tere lu bon ku ci war ku ci géttan war ci moom nga nga géttan ko washkuri te nga te ngay sant nag ihsaanoom buñ la defalee lu baax in ahsanoo waaye ku la defal lu baax nga sol ko it gënut yàlla ci yàlla musul kon noonu la ñuy suñ tubaa jàngal waaye nag bi ci des nag nee na nga ak waxay ni xaqiqatin ihsaanohum in ahsanoo waxay ni xaqiqatin bil xonduri hinda shayni xa bëtum xaqiiq bi mooy loola waaye def nga dogal ko ngant ne xam naa tëyi ko yàllaa ko yàlla ci boppam moo ma bëgg a jëflanteeg man moo tax ma mu def loo ko lii ci eh, nga xam ne doo topp kenn waaye def rek yaa bi ma xasawkaa aw manaxooka minhu lii la nit ñi mooy ak lañ la lor ak ak ak lañ la xañ li nga jàpp ne dañ la koo xañ loolu lépp bul jàpp ne ci na ngay jàpp ne ci yàlla la jóge bu ko dee doo mere kenn li annahum fi qabdati rahmaani ñoom ñëpp ci ngëw gu yàlla lañ ne yàllaa leen def loo rek <laughs> wa jabrihi ak manantug yàlla fii kulli ma awaani waaw yàllaa leen di manant <laughs> boo nekkee foofu sa jëflante dana rafet ci sa digganteeg say bok ak sa digganteeg say mbindeef yi yàlla na ci yàlla dimbali bu ko defee nag ngeen xam ne taalib yi moom bu mbedd mii rek la war a solo bu ko defee digganteem mag ñëpp day daal rafet ndax alxuraan ci boppam moo njëkk wax ne eh, nit ki waxtu wu ne daa war di wax lu rafet te bañ a kenn safaan waaw waxoo loolu li naa si xos naan alxuraan wax na ko day leen wax nit ñi lu rafet sëñ taalibi bi it moom inal inal murida laa yuridu abada xayra rida rahmaani haysu xasada taalibi moom ngërëmul yàlla rek lay bëgg yàlla na ci amul leen waaw foofu loolu la suñu wax kon nit nit ki na fexe ba digganteem ak nit ki rafet na feexe ba digganteem ak ay bokkam rafet na fexe ba digganteem ak nit ñi rafet na nga fexe bay rafetal ku mën a ñaawalit yow rafetalal rek ndax kenn ku ne la nga ëmb rek mooy dellusi bu ko defee yonent bi ci rafetal googu mu doon ngi sëñ Tuubaa doon jàngal ci la yonent bi def ay addis mu ne man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallaahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyaamati ku fex ab julit bu njàq nga fexe ba tàggale ko njàqare la yàlla dana tàggale njàqare yawmal qiyaam <laughs> wa man yassara ala mu'sirin yassara allaahu alayhi fi dunya wal aaxirati képp koo xam ne nga fekk ku ñàkk nga fexe ba mu womal fekk ko ci jafe-jafe nga dimbali ko yàlla dana la jàppandal yiw ci àdduna ak ci àllaaxira wa man satara musliman satarahu llaahu fi dunya wal ku fekk ay bi jullit yoo mënoon a weer nga nga ko yàlla dana la suturaal ci adduna ak ci alaxira <laughs> te dégg ngeen li sëñ Saali waxoon nee na nee na doomu aadama moom buy li ñut say say ayib dalaa bëgg a weer yàlla nag moom dalaa bëgg a jéggal <laughs> ma wallaahu fi awni al abdi ma kaana al fi awni aqi rawahu muslim Eh, nit ki fii mi ngi jaam bi fii mi ngi mi ngi fexee dimbale mbokkam rek yàlla dana yàlla nga koy gën a dimbale yonent bi nee na maa amana bii man baata shabhaana wa jaaruhu jaaiha wa huwa yaalamu koo xam ne danga fanaanoo regg te ki nga sësal kër xiif te nga xam ko te mënoon koo dimbali benn kilo te defoo ko nee na kooku gëmoo gëmmu hmm. loolu yëpp ci bëgg diine ngeen di jëflante jëflante bu rafet moo ko indi yàlla na nu ci yàlla dimbali boo dee gisee alxuraan ne araayata lazi yukasibu diini fa zalika lazi yaduhul yatim wala yaxuddu ala tahamil miskin ki nga xam ne du soññ nit ñi ci ñuy leele miskin moo tax eh, itxaam gii nga xam ne sëñ Tuubaa moom la indi ci màggal gu mag gi ñu di ko def tiyaaba ji kenn mënta xam luñu toll ndax tiyaaba yi itxaam ñu naroon a faat ñun yëpp sëñ Tuubaa nag ñu ba itxaam li ci yàlla dële nga xam ne eh, tëkk yu bari bu ko yàlla wax wala tax mu doon xalaat taxamil miskin mhm. arayta li si yukkasu bi diin fasaal ki si yaddoon yetim wala ñu doon taxamil boo demee ci maa salakakum fi saxar it xaaloo lam naku minal musallina wala mu naku nutimul miskin <laughs> oh. kon yal na yàlla dimbale loolu lépp nag sëñ bi daa bëgg dara raw ñu moo tax mu mu loolu lépp mu dimbaliñ ci mhm. wutal ñu uh, waxtu woo xam ne ñun ñëpp danañ ci def loola ba mën a jariñ mhm. yàlla na ci dimbali ci dara jàmm bu ko defee nag lim dénk taali bi yëpp moom sëñ Touba mooy taali bi yëpp ñu góorgóorlu ci sàkku xam-xam ak i teggin wa sayidkum yaa jumlata tullaabi bi talabil ilmi mahal aadaabi ijtaidu fil ilmi wa taaddubi wa sahyi wa hiya jalibaatu raxaabi yéen ñëpp na ngeen góorgóorlu yéen taalibi yi ci sàkku xam-xam ak i teggin faru leen ci xam-xam ak i teggin ndax xam-xam bu ëntu ak teggin dara nekk ak jëf yooyu ñoo leen di may li ngeen bëgg loolu la sëriñ Tuubaa wax te fu ngeen toll yi ngeen di defar was solxu xayrun la alxuraan wax ba tey mooy jëflante gi ma leen di wax loo mënoon fekkee lo lu naraan yàqu sax boo mënee fexe ba ba defar ko rek fexe fa defar ko ndax mboolem alxuraan mboolem nit ñi déyaale yi ñuy déyaale alxuraan nee na yett rek a ci am njariñ laa xayra fii kasirin min najwaahumoo illaa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna nas wa man yafa saali kaptixaa mardaatillaahi fa sawfa nootihi azima déyaali yi ñuy déyaali ak réunion yi ñuy def ak tëju gi ñuy tëju cim néeg ñett rek ka ci am njëriñ digle sarax wala digle njekk wala digle luy luy luy yéwénal ab diggante bu dul yooyu rek amul njëriñ waaye ku def ñett yooyu ngir sàkku ngër ngërëmul yàlla day danaa la jox tiyaabu ju rëy kon nag yàlla na nu yàlla dimbale ndax euh, <clears throat> xusnul istimaahi lil ulamaa yi am na solo lool ndax dana maye xam-xam fexe fexe ba borom xam-xam yi bu ñuy nga nangu koo déglu dana dana maye xam-xam am na ku ne ku sëñ Buxaari daa nettali koo xam ne dara borom xam-xam ku baax la woon te bëgg diine te ne Tuubaa danaa wax naan man de jànguma waaye gede soriwut sëñ Mbàkke Buso ngi lu ma jaaxal rek ma dem laaj sëñ bu Buso léegi léegi mu daal raw ñëpp <laughs> te mu bëgg diine lool ndeysaan gere sëriwut jaaxliwu ma njàng mi sëriwut waaye gere sëriwut sëriwut <laughs> lu ma jaaxal li nga ba daal di uti uti gere rek laaj sëñ Mbàkke kon nag loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen bëggoon a waxtaanal ci ngeen xam ne diine mooy mooy jëflante diine mooy ay teggin ndax ci jëflante googu la lay sol ca mbeddum jëflante gu rafet googe mooy nga sóobu mbeddum teggin la may eh, eh, boo ci duggee nag ci ngay door a mën a ame diine ndax diine euh, ku ci ne xam na ne euh, kenn du ku ko juddu it dañ la ci yar mooy tax nga am ko am na benn waykat bu wax de wa yansha'u naasi'ul fidyaani minna ala ma kaana awwadahu abuhu ku ne lala sabaay yar moo tax ku ne ci nun la la sa baay yaroon ci lislaam li yar la ko jig taalibe da ci yar sa njaboot ndax ku ne la la la la la nga yar sa njaboot rek ci lañuy ñuy màgg di leen yar ci diine di leen yar ci lislaam di leen yar ci sëñ bi wama daanal fata bi hijan walakin yuallimuhu tadayyun tadayyuna aqribuhu xel rek mënta tax am nit diine mbokk ñoo lay wan la yoon wa nga soog mën am diine kon yàlla na nu yàlla dimbale te ngeen xam ne nag fii ñu toll ci at mu bees mii di bëgg a ñëw ñun ñëpp loolu sëñ Tuubaa waxoon ci waxtu nañ koy gën a sàmm kenn ku ne xam ne waxtu lu seer la sa sa waxtu waxtu moo gën a seer ci li nga am ndax li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali noy gu génn ci yow sëñ bi nee na wurus la wu gànjaru woo xam ne wuññikuut yumkinu an yastariyal kansa biha te mënoon nga ci jënd trésor bu rëy boo xel la woon am na benn waykatu boroom xam-xam bu wax ne alwaqtu anfasu ma unita bi hifsihi wa uraahu wa araahu ashala ma alayka yadihu wa waxtu moo gën a gànjaru ci liñ lay sàmmaloo waaye it moo ci gën a gaaw a sànku dem ci neen am na benn waykat bu ne inna la nafraxu bil ayaami naqtahuha wa kullu yawmin mada jusun min al xumuri ñun ñëpp bu bis yi ñëw dañuy bég bis yi buñ koy bu ñuy dog bis yi di maanaam bis yi jàll ku ne day bég te xamoo ne bis bu jàll bu ne ci sa dund la génn am dikk ci asar ne annahu ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa munaadin yunaadi bi lisaani lyawmi yabna aadama ana yawmun jadidun wa ala hamalika sahidun fa tasawwat waxtanim man nee na feq bu ne asar génne na ci eh, eh, eh, asar génne na ci mooy loo xam ne baxiitu euh, salaf euh, euh, baxiitu sunnati génne na ci ne képp koo xam bis bu agsi bu bees bu agsi bu ne bis ba ci boppam dana taxaw ne yow doomu aadama ji bis bu bees laa te damay seede sa jëf jiim maa jox ab yóbbal te jiima màng bis bi jiim maa màng ndax bu ma demee du ma dellusi <laughs> kon kon kon yàlla nu yàlla dimbali ba nga xam ne at mu ñëw noonu ko Cheikh Mamadou Fadil daa ñëw ak bés bu ñëw xam nga dégg dégg naa ci waxe fa lu mu ne àdduna euh, ju nit ki daa war a xam ne euh, tay rek la sa adduna jëpp tay rek la ndax démb téggatula ko ëllëg téggagula ko tay rek tey jii nag da ngay fexe ba bu accès nga rafetal ko eh, bu subaa it mu ñëwee nga rafetal ko bu subaa ne sa àddina jëpp daal di baax waaw kon yàlla nu yàlla dimbale def ci ñun dégg ak topp def ci ñu it ñu eh, yiw wi ñuy séentu yëpp yàlla defal ñu ko te defal ñuy nag jàmm ci réew mi defal ñu eh, ak mucc ci mboolem balaa yi ak musiba yi teñ eh, eh, teñ ci ya teñ ci yaakaar ci ñaanuk yàlla ñaa ñu yaakaar ci ñaan ci yàlla ci darajee sëñ Tuubaa yàlla gën ñoo gën gën ñoo tàggaleeg balaa yépp gën ñoo defal jàmm ndax ab jullit moom ngànnaayam mooy ñaan ñaan ñaan moom ci la lépp ne waaw sëñ Tuubaa lu lu lu lu ne xasaa itam yi bayit wu mu jël bu ñaanee yàlla nga ne bu bu noppee du du am lu mu ñaanaat dëgg bu ñëwaatee ñaanal leen loo xam ne danga naan lii fu ko xamee waaw loolu loolu xam ku mu xam yàllaa tax ndax xam nag ko tab la te loolu yi waxoon ci géej gi te suñu sari daa ko nett li ci ba ba ndox mi tasiot ci tubaab bi mu ne leen yéen de da di da di ñoo xam ne ñu nay ci li ngeen yor lañ moo tax ma di leen ñaan ak ci sadlak ndox ma yi ma yónnee sadlak ndox ngeen di ko aaye mm-hmm. bëgg jàpp mm-hmm. waaye ki nga xam ne ko tabee la te du jeexal bi ma bi ma soxlaa gis ngeen ni mu def day taw ba ñoom ñu yónnee ne <laughs> boo mënoon a bu ngeen mënoon a wax ak kee waaw <laughs> maarab bu ngeen mënoon a wax ak moom daal ndax taw bi taxaw ndax nii Afrique centrale miinees na ci ne taw bi day yàgg waaye li lii fi mu àgg ren fi mu àgg fan fan yi musu àgg kon nag yàlla nu yàlla dimbali ñi ngi taas yu barkeb kooku rek di gën a ñaan jàmm di gën a ñaan sutura di gën a ñaan wér di gën a ñaan kaaraangeem uh, wa kullu haamin wa antum bi xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, jërëjëf uh, Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacke yaakaar naa mbokk yi li ñu leen waxoon dalaat ngeen bind bu yees peq <clears throat> ni ngeen di daloo at mu yees peq yaakaar naa ne ku xalaat li weesu ci at mi jël bind ci at mii ak dénkaan yi bees yi teg ko ci ba ba ngay dellusiwaat déwén da nga mën a am at moo xam ne at mu barkeel lay doon waaye at mu yàlla nangu lay doon waaye at lay doon itam atum jàmm ndax kenn du mën a xuloo ak sa morom ndax day fekk ne seen diggante jàmm rek moo fa xew kon ñu ngi santaat bu baax Cheikh Mamadou Moustapha ñaanal yàlla borom gën ko fee yàggal lool gën a dolli ak wéram te yàggal fi mboolem njabootu Serigne Touba gépp di ñaan yàlla itam bis bu bi nga xam ne <clears throat> waxoon naa ko ca appel ba ne bis la boo xam ne bisum njëggal la waaye bis la it xam ne bisum nangu ñaan la ndax ki ci jamono suñ borom eh, wàcce ko ci mu di Cheikh Abdoul Khadir Serigne Touba moo waxoon ne àndaale na am njëggal ba ku mu taxawee suñ borom jéggal la waxoon na it ne Cheikh maam Thierno Ibrahima borom Daarul Muxti mi koy jox aw tur ku tegeeg moom bët suñ borom jéggal la kon bisum njëggal la waaye moom it teg na tànkam ci sunna di jaamu yàlla ba noppi di taalibe Serigne Touba di ko liggéeyal ba kenn nattabluwut ne suñ borom nangul na ko ak jaamoom ba yabal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu fekk ko ci dëkkam bee nga xam ne moo di baxtaat te loolu nag mooy dëgg-dëgg ijaaba mooy doon woo yàlla ba yàlla na la maa ngi nii kon bisub ijaaba la it nangu ñaan la muy bis boo xamante ne bii gaaw bii di ñëw lay doon ñu ñaan euh, bokki jullit yëpp ak bokki taalibi yëpp képp koo xam ne dundal nga bis bi yàlla na la yàlla dugal ci njëggaluk Cheikh Abdoul Khadir googa waaye dugal la ci biir ñaanam gu nangu googa nga xam ne mooy ijaabatu ga nga xam ne am na ko ci barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul seen bokkum taalibi Fallou Gala Sili moo àndoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi